premier constat bi ma gis mooy Gambie da ngeen su ngeen bëggee su ngeen bëggee su ngeen bëggee Gambie sénégalais yu nekk Gambie am jàmm ci politique su ngeen bëggee président am jàmm da ngeen di juboo nekk benn. xiiroo ak ŋaayoo amul dara lu mu jur ci lu baax président mu ngi yore benn bokk yaakaar téye ko ba bañ ñu tasaaroo yéen itam ak rôle bi ngeen di joué ak place bi ngeen am ci Sénégal ak place bi ngeen am ci diaspora ñu ne ñii fii lañ far ñële fële lañ far te ñëpp jublu ci Macky Sall joxante leen loxo ngeen liggéey moo tax ma ñaan honorable Cory Ndiaye ñaan Ibrahima Sakho na ngeen ànd nekk benn. xaajaloo ji parti ni ma leen ko waxee rek parti moom bu fekkee ne moo nekk au pouvoir moom mooy joxe ministre mooy joxe député mooy joxe post yu mag yi foog mu am ay tension ci biir ndax ku nekk day bëgg am loolu dong la waaye fii moom dëgg-dëgg yàlla dimbali nañu ba. Gambie ba monsieur le président Macky Sall faloo ba léegi élection bu ñu fi mës a def ñoom ñoo ko gagné malgré division boobu donc mooy wane ne division bi euh, c'est peut-être utile sax. ndax dina tax ku nekk gën a ñaax sa borom wane ne man maa la gën a maa la gën a baax maa la gën a fës maa la gën a ëpp nit donc loolu man gisuma ci lu lu bon daal ñu ngi def lu nekk nag pour boole leen pour ñu nekk benn ndax mu bañ a dégénérer daal waaye alhamdulilah pour le moment tout se passe bien